nga bañ euh, am nga lu naqari mm-hmm. nit nag bu amee lu ko naqari ala kulli ali même bu ko waxulee dana feeñ ca kan kanam nga mm-hmm. ku bokk Pastef rek ak même ñi bokkul Pastef nga gis nit am na ñoo xam ne ñu ngi bokk peut-être sàmm sa kàddu de dinañ toog fi ñu toog mën nañ ko bañ a génn di ko manifester mais dinañ toog fi ñu toog ne waa mais sawaay nag nañ waxante dëgg nag ñun ñëpp ci coalition lañ bokk. mais ce qui s'est passé à Ndar sincèrement ça nag c'est mais mën nañoo bañ génn dem ci rajo yeeg télé te boo demee sax ñoom ñooñu xam naa ne ba ñu wéetee seen biir am na du ñàkk benn wala ñaar ñu ne sawaaye déglul nag ñu la nag. en tournant. waaw en tournant dañ lay waxante dëgg lii dafa ñaaw. parce que amul explication loolu nag bu amee képp koo xamante ni nii yow da ngay wax te yàlla tax bul far léeg gis ngeen ñu naan leen ay yéen da ngeen di far far faru lan nit ku jël jaasi dugg ci biti non seulement cor nit ña gaañ bañ ne ci diggante dee. voilà bu affaire moom ba tey acte bi ba tey day daw sama yaram. ñu ne ak cent fois lañ ci àndal waaw waaw ba pare nga sàcc ay ay ay bagages ba pare dem mais nit ki ñemee taxaw ci rajo ñëw ne la yéen ñii di wax lii di naqarul lii yéen ay naa fekk ngeen seen njiit ci boppam dégg ne yow waa mais yow nga nekk ci biir kër Amina nekk borom kër gi. Mm-hmm. maara di taali ay agresseur dugg fa Abdou Fall. dal sa njaboot. dal sa kaw njaboot gaañ sa jabar gaañ sa ñaari doom. dóor gardien bi jaasi mais nga génn di naqar lu lu mel ne dëkk bi dañu war a wuti sécurité nekkatuñu en sécurité léeg-léeg li waaw léegi nag sama kër gi man damay dem wuti autorisation de port d'arme ku fi duggati dinaa la wàcce dama lay dóor bal les gars yi ne waaw mais non attends nag Ahmed nag ni mu waxee aussi xam nga moom homme public la warul di waxee nii quoi sincèrement wax ji moom daa daanu. <laughs> mais Sonko bu jëlul seen défense kuy jël seen défense. ñi leen dóor ah te dama koy wax ni Sonko moom à chaque fois avant muy wax day préciser une chose soit day wax en tant que premier ministre euh, wala mu wax en tant que chef de parti te moom chef de parti la waxee ci la nekkee campagne sur le terrain bu défendre kan mooy défendre. même waxee en tant que premier ministre na wax. non non non c'est que la sax borom kër. borom kër boobu. loolu jàll. Mhm. moom c'est un père de famille. c'est c'est moom seetlu na ne. presque dix ans ngi nii moom partem wàccuñu ko mu dem opposition ba dem au pouvoir mais jaasi yeeg yet yi ak convocation yi continuer ba léegi di dal ci njabootam gi léegi nañ leen dindi kon léegi président parti waa léegi indiwaat leen teg de liste wu ab coalition mu nekkaat ko waa léegi dindi leen léegi te delli sa coalition waa léegi indi leen ses fonctions de premier ministre Ousmane ko même bu déggoon ne beneen coalition la ñu song ak ay jaasi étant le premier ministre et tête aussi da ko war a wax naqarlu ko mais rawatina nag yow mu nekk yow sa propre famille politique mu ne man dafa mel ni sama njaboot gi seen deret mais nit ñi dañ koo banaliser quoi deret waa Pastef dañ koo banaliser moo tax poste Pape Alé Niang bi man je suis pas contre <laughs> li du wax ci suuf soo da ko wax ci kaw moom comprendre dara di voilà et puis yow yaa ngi wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax affaire bi di répété wu di répété mais même yow boo calmé sa njaboot am na ci ay ñoo xam ne mën nañu wut ay proxtu ndoolu gaa yi ay échappatoire ne fa poset jaar fa def ay giraawaali sax nga bañ leen a mën a maîtriser parce que da nga naan trop c'est trop mais ay nit taxaw fii gaa yi wax ñoo yónnee ay message naan ñu ay ni ngeen doon waxee démb waaw non et puis ñin ñin luñ fi wax sax ñin ñin après ñin li ñu wax sax naqarlu mbir mi ba pare. xam ne carrément ne le premier ministre wax na sous le coup. de la colère de la mhm. colère. Mhm. biñ ne dañuy dem baaw baaw ñin fii. Mhm. ñun de ak Baara Ndiaye ñun ñoo nuroo benn kàddu. te pourtant am na fi ay internautes euh, euh, patriotes yoo xam ne. Hmm. d' accord ñoo man sax ci man bi ma ne man de d' accord ci benn côté ak le premier ministre Ousmane Sonko warul daanu ci piège ma indi l' exemple des nawetaan. ma ne nit yow boo boo mënee équipe ba match bi di waaj jeex kooku moom mooy bëgg piégé la pour match mi yàqu campagne nga dem na ba mu des quatre jours mm-hmm. naqarlu bi moom ni mu ko defee moom noonu lay deme mais kaay leen ñun ñu wuti ay jaasi defante ak ñoom attention am ñu fi wax ne non nekkul benn piège on en a marre léegi-léegi mm-hmm. heureusement heureusement sant yàlla démb premier ministre bi li mu bëggoon yëpp def na ko dem na baaw baab meeting na. fekk ko fi caravane na. te coow jibu bal tàkkul sagar xeeñul nee na gars yi ñetti fan trois jours nous séparent du sacre coupe baa ngi nii tey ñetti fan moo ci des mais man noon bi dina traversé sama kanam gars yi sa waay ba ma xañ xañ ma xañ ma coupe bi trois points ñetti fan. mu leen bu leen dóor bu leen saaga ñin ñañ tere woon ne leen doo leen campagne léegi sax ñin yeewee nañ leen campagne leen mais man du ma la may approche ndoll boo xam ne bu ëllëgee dara ba xëyee ci résultat yi ñu ne bon c'est normal parce que gars yi dañoo bàyyi ba mu des trois jours. Mhm. ñu jël leader yëpp ne leen ràpp. tëj leen tëj mhm. ba yeggale wuñ campagne bi. ñu am luñ tilimalee victoire. ñu éliminer seen adversaire. Mhm. leneen li ñuy wax nag moom si état bi. Mhm. waxtu wi dafa jot ngir ñu jóg ci nervi yi état aussi mënoo koo topp rek doon ab chroniqueur di leen neexal di leen neexal nañ wax dëgg Ousmane Sonko il est le premier ministre ah oui gouvernement bi moo war a dakkal mbirum nervi yi mhm. nervi yi wëyu nervi ay wëyu lañ. ku fi bëgg a defati mbirum sécurité gardiennage demal nga dugg ay sagaam ngeen baal ma ci publicité bi ak yeneen ak yeneen def concours jéem faa dugg wax ji jeex nga dem liggéeyi. néer bi sax mañ koy commencé dégg ba tey depuis temps Mame Mbaye ba tey. néer bi néer bi heure bu dikkee ak musiba yi ñii ñu fiy def. Mhm. ñu bàyyi continuer néer bi di continuer di dem. garde du corps ak néer bi c' est pas la même chose gis na gis nañu gis nañu manifestation yi fi weesu néer bi ñaata doomu aadama ñu daal di leen di zoom ci ay image ak lépp yoo xamante ne fenn. mbirum Minervi bi aussi je pense que ni. il est temps ñu régler ko. il est temps ñu régler ko pour une bonne fois. en la plupart du temps ji yi am ñoom ñoo ko indi. voilà parce que mënuñu concevoir Amina ñu nekk ci dëkk boo xamante ne tey jii dëkk boo xamante ne Sénégal quoi qu'on puisse dire xamuñu fitna. Mhm. Sénégal loo mënti wax xamuñu pour deret xamuñu leneen mën nañ ne événement yooyu mars 2021 rek lañ ko fi dundoon te dafa am lu waral bi dundoon ko fi. que dafa amoon benn état bu fi nekk di jaay doole am ñoo xam ne taxaw ne ko doo fi jaayee doole mbir moom indi ko fi mais Sénégal xamuñu fitna léegi nag man li ma en fait sama problème mooy euh, Amina mënuma concevoir tey jii la nga xam ne moo xew Saint-Louis du du xeex ñaari diggante camp de wala du ay ñaari euh, coalition ñoo daje xeex non li xew Thiès pour man xam nga lan la banditisme pur et dur la. parce que mënuma concevoir Amina yow tey jii benn jaaykat toog ci boutique wala nekk ci marché taxaw ne Sonko nga ne ko doo ko fi waxee waaye yaa nag ba dëkk la ñu nekk di nga ma faral wala ma ray la di nga ma faral wala ma góor la jaasi di nga tudd sama waa waaw war ne ku bëgg am li Ousmane Sonko su am dangay ngay def li Ousmane Sonko def. am sans sans sans sans oublier Bakel ba ñu ci ba ñu jàppee Bougane la mu waxoon. takk der yi bu ngeen teewul ñii di ma sonkoriser. dinaa def loo xamante ni di ngeen am liggéey. li ngeen am liggéey des menaces yoo xamante ni. après mën nañ ne menaces yi exécuté nañ ko. Uh-huh. parce que loolu moo indi tey ji moo tax uh-huh. ma ni euh, jamono ji pour man Sénégal war na dépassé foo xamante ne dañuy nekk ci politique boo xamante ne politique gu ñàkk kersa la.